de day ummi ñu xool nañu sànq gis nga. ko gis naa ko ñu xool waaye moom na xelam daal fii benn xeer du fii du du du eh. du fii de du du fii ci kaw de. du du eh, Jimmy Fierce, game was out. man de li may man leer leen leen dugg. xoolal am na ñett leer leen ne xeer man nga moom a jaaxal sëñ bi. nga xam na ko xam na ko leer na ko. xoolal fee fee. dégg na dégg na la. waaw moom mi sëñ bi waroon na kii ba pare de. nga day toj bopp bi dëgg dëgg da ngay sas non waaye ñoom seen liggéey lañuy def li ma seen liggéey a dem gaaw dugg yoon bi dem dem seen yoon man kii solut kii kii solut masque bi man moom laa yërëm man kii yorut kii solut casque bi non wër non wër ma loolu de borom kii solut bi moom moo Mbaye Sall ne day accompagné. toog foofu ñoom en temps rek daal di may. Billahi cuma dua kali, Pak. Bapak. Woi, sekarang sekarang. xeer la saan xeer. aywa ñoom dañuy dañuy yàq dañoo jàmbale. waaw dañ ko mën a yàq. déet kii kii li mu dóor mooy na. kii fi mu dóor baaxut. fii <laughs> daa jege moom. booy bi. booy bi delluwaat na leen ko. booy bi danañ ko delluwaat. non booy bi est dëgg rek booy kon yàlla bu mu ñëw fii ci kaw sax. ñu ngi daw. man li ma neex ci booy bi daa for affaire bi delluwaat ko. ñooy dem ñooy dem ñooy dem. si isa isa bi daw ña nga daw. si isa bi policier yaa ngi daw policier yaa ngi daw policier yaa ngi daw policier yaa ngi daw nan leen di dàkka police yaa ngi daw ña ngi leen di dàq ji police yaa ngi daw ña ngi leen di dàq ji teggi na safara ji ku ne ku ne oto ba toj na ku ne oto ba toj na na ngay daw ña ngi leen di dàq ji police yaa ngi daw dañoo jeexal dañoo jeexal sama buñ bi ko fekkee moom <laughs> booy booy booy yore yi. non xoolal xoolal xoolal xoolal am na booy boo xam ne daa far affaire bi delloo waat ko ko. man yàgg naa at. ndànk rek ndànk rek. mu fi kay ne leen wër ma bu ñëw fee fi ñu ñuy génn bu ñëw dañuy génn bu doon seen oto bi nga xam déggoon lu ma la wax ñu dañ leen non xool am na boobu xam ne daa far affaire bi delloowaat leen ko. parce que ko boobu ñeme na de affaire bi la far mais bu fekkee guddi gi la nii kay. duñ teree fii nga taal fële. moom kenn mënul leen kaa bañal dëkk yëpp la am yëpp la métti ñoom kat dañuy dagg roosi rek yóbbu seen kër gars yi kay dañoo mujjee daw daw eh booy borom moto yi ngeen di dóor borom moto yi ñoom ñooy yoole borom moto yi ay police lañ non dinañ ñëwaat ñii dañ ñëwaat dañoo jeexal rek jumaa ja la ñu bañ ñu àgg xam naa dañuy risqué ji foofu eh eh, eh. li mënoo si dara sëñ bu ñu taal eh booy eh eh eh wax la wax bu ñu taal fii sëñ bi eh sa waaye eh. léegi boo eh, si wax gars yi dañu lay sànni xeer mbala xolam. mënoo si dara mënoo si dara. gars yi lay xeer par. ñun ñëpp di def gisoo. mbéyum noonu moo ci waxee gars yi xeer suñu waa kay waa kay avancé leen ko waaw góor waay te papa day yëgu tool lii xel ma tey woon nii du jaar kay aussi wàllu woon eh sëñ bi noonu na dugg oto bi ci sama ci maam Fall la jëm Thank you.